ci gàttal daal dañ koy tënk école bu Kayar Thiès ak Kaba Sall dañu am ay jafe-jafe école yi kenn xamatul lan la ñuy nirool léegi nag il faut ñu seetaat nuñ koy doxalee defaraat école yi àll bi am na ay ay ay abri provisoire ay mbaar ay ñax amul amul nuñ koy waxee ti mooy kii nuñ koy waxee jëm jumtukaay yu bees yi pour xale yi mën a jàng jàng bu normal amul leeral pare làmp amul ndox amul dara loolu daal lañ bëggoon ci ak euh, ñu defaraat ko daal pour njàng bi mën a jëm ca kanam jox ay jàngalekat yi ay jumtuwaay yu bees fay leen euh, liñ leen war joreel ci koppar ak seen seen liñ leen yoral ci ci ay seen seen seen jàngaat daal di leen di tàggataat loolu daal lañ doon wax. julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñuy waajur kàddu ñuy njëkk jukki daal ay kàddu ngërmande la lay doon euh, kàddu ngërmande jëmal ko si délégation bi jóge Dakar wax dëgg si yàlla ñëw si biir taw bi ñëw ba cees fekkee tey jii lii ñu nar a sos tey Thiès monsieur fay jiite ko représenté fii le président Abdoulaye Baldé bu weesoo jëmm jooju ñu ngi gërëm le coordonnateur départemental de l'union centriste de Thiès en la personne de Mohamed Diatta ak équipe bi ko ba mu àndal yëpp bu weesoo loolu aussi suñu ngën mën dina law dem ba si monsieur Thioban moom mi jógee tamit géejewaay nekk le responsable national de l'union des enseignants centristes du Sénégal suñu ngën mën tamit mu ngi dem ba si si moom di wax nag ni ah mbir bi de moom doy na waar loolu moom dama si kontaan nga toog ak say naataango ëppoo leen xam-xam ëppoo leen daraja ëppoo leen jaar-jaar ñu jël man sama jëmm ju ndaw ji ju ñàkk solo ji ne ma jiital ñu lii man nag amuma fay yàlla mi am fay yàlla na leen yàlla fay waaye nag tiit naa waaye tiitaane nga googu nag su ma xoolee ñi nekk sama ginnaaw tiitaane googu dina dàqu moo tax may sàkku tamit di tàllal samay loxo di ñaan suñu borom mu kàttanal ma kàttanal ñi ma àndal ba kat lii ñu ñu sas ah ñu am si ndam yàlla mën na ko yàlla na ñu ko yàlla defal moo tax maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp ku nekk sa tur sa sant bu loolu weesoo kuréel bii nag bëgguñu mu doon si kuréel comme kuréel yu ñu fi gis di mbubboo enseignant yi di leen nax di leen def ab perchoir di leen def ab échelle boo xam ne bu ñu yéegee ba si kaw rek falax falax échelle ba ne enseignant yi topp leen fële ah kuréel bii de ñuy jiite incha allah di doon kuréel boobu moo tax kuréel gii dañoo bëgg mu doon benn mu genre comme genre gox xaw ma nag nu ñu koy waxee ci olof mooy benn lieu d'ancrage benn lieu d'ancrage politique ndaxte dañoo affilié wu ci parti politique mënuñoo ñàkk politique te bu ñu politiqueul rek politique defar ñu surtout politique bu bon nag comme ñun dañoo bëgg politique bu baax bu mel nag suñu leader di Ablaye Baldé moo tax ñun ñu sumb bëgg lu baax bëgg koo topp si lu baax loolu ba jë jëmal Sénégal kalam moo tax fu ñuy njëkk sukkuwaay suñu suñu suñu suñu jëmtuwaay bu njëkk mooy politique boobu fexe ba nag union bii ñu sër ñu taxawal tey doon union boo xam ne day gën a ñoŋal parti bi fii si département bi mu law ba dem si Sénégal fexe tamit ba kuréel bi fexe Ablaye Baldé mi nga xam ne ñu bëri nag dañ koy dañ koo xamul fexe ba xam mooy kan jaay ko fépp si Sénégal li mu bëggal Sénégal ñu wasare ko Sénégal gi yépp loolu mooy loolu sur le plan politique loolu la ñuy sas union bi tey waaye nag bu weesoo politique bi ñun ay jàngalekat lañu am na loo xam ne nag dafa ñoo euh, dafa spécifique si ñun moo tax union bi tamit avec le camarade Balde dañ si taxaw mooy fexe ba jàppale enseignants yi ñu gën a xarañ si njàngale mi fu nekk ñu ngi leen di xas des fois sax ñu ne leen xamuñu dara ministre dégg ngeen ko ministre bi lu mu doon wax ay ay nulaar lañu waaye ñun dinañ ko wan nag duñu ay nulaar kuréel bi nag loolu dina si taxaw. dinañu tàggat enseignants yi topp leen ba seen promotion professionnelle union bi loolu sas nañ ko ko tey bu looloo bu weesoo politique weesu tamit profession bu ñu nekk kuréel bi dina doon tamit benn euh, benn benn jumtuwaay boo xam ne dinañ si sotti ay xalaat ñaqal suñuy xel pour jéem a xool njàngale bi nga xam ne ay ati ata ngi nii mu sooxe lan la ñuy jël teg ko si loxo Abdoulaye Baldé suñu président incha allah 2019 ba mu saafara jàng bii nga xam ne dootuñu déggati grève yi loolu sax nañ ko kuréel gi waaye nag may may may may may joxoñ nit jàpp suñu leader bi di ko xas ñaan dafa dodoom ak mënul wax ak waaye ñu mën wax fu ñu jëmale réew mi tey ñi nga xam ne foo leen fekk ñoo nga fi wax ces sophistes là où est-ce qu'ils ont amené le pays un pays ne se gère pas par la parole sa se par l'action. Et Abdul, notre président Abdoulaye Baldé, c'est un homme d'action. Il l'a prouvé à maintes reprises. On vous a lu son CV. ñu liiral nañ leen fu mu jaar yëpp waaw kooku nag kon du cuune moo tax it foofu moom dinañ ci taxaw comme moom mënul wax ndeysaanam ndax jaar-jaaram ndax uh, ndeysaanam yaram ndax responsabilité yu mu xam yu mu xam si état waaye ñun nag tey jii baatam boobu nangul nañ ko ko fu ma waroon wax dinañ fa wax fu ma waroon yuuxu dinañ fa yuuxu fu ma waroon fëgg kurbañ dinañ fa fëgg kurbañ bu bëggee sax ñu woyal ko waaye nag <laughs> am na way bu may dégg muy muy circuler si rajo yeeg si meeting yi de duñu duñu way way boobu de fañiñ fañ fañ fañ bëgguma ko sa wax ñun Ablaye Baldé nañ ko woyal nag way bu neex su ko bëggee incha allah dinañ ko jàppale si élection 2017 yi dinañu passé élection 2017 yi émet 2019 ba yóbbu ko à la magistrature suprême loolu mooy suñu mission incha allah yàlla nañu ko jërë ngeen jëf gouvernement bi message bu ñu koy lancé wax dëgg yàlla dégg nañu ministre bi temps si rajo yëpp muy woote jàmm jàmm waaye jàmm nag ku ñu si woowoo ñun jàngalekat yi ñu fekk la si ndaxte ñun jàmm rek la ñu bëgg comme woote na ko nag te moom moo yoroon jaasi bi di dóor. moo yoroon kurpañam di fëgg bu téye jaaseem téye kurpañ rek jàmm am waaye jaase yooyu nag dafa amoon lu tax mu koy yëkkati parce que dafa signé ay accord ak jàngalekat yi dégg ngeen ministre fonction publique jamono yooyu lu mu wax c'est la première fois au Sénégal qu'on signe des accords réalistes ak réalisables loo xam ne moom mën nañ koo def waaye ñeenti at ba léegi ñuy xaar waaw bu ñu bëggee jàmm nañ ko def rek bu ñuy rek bu ñuy fayee enseignants yi seeni rappel acte yi di teel a génn avancement yi di teel a génn ñu jàppale ak école yi jàppale école yi defaraat école yi wàññi abri provisoire yi abri pro abri provisoire sa war am faf warul am vraiment c'est aberrant à ce siècle là vingt et unième siècle qu'on parle d'abri provisoire au Sénégal, et on parle de qualité, qu'on parle de transparence, qu'on parle d'émergence. donc ñun daal loolu la ñuy xaar ci gouvernement bi mu respecte accords yi mu gën a jàppale jàngalekat seen formation taxawu chaîne éducation bi yëpp du jàngalekat yi rek inspecteurs yi de ngeen leen ñuy ñaxtu xool tamit nu ñuy saafaraa di waxtaan nag ubbi waxtaan lu waxtaan fajul xeex du ko faj xuloo du ko faj waaw comme nag gis naa ne ñu ngi ci ñu ngi ciy wax. dañuy rafet njort rek waaw xam nga assises yi am na ay recommandation waaw assise am na recommandation mooy mooy mooy feebar bi rek mooy feebar bi rek soo waxee ay ac ay ay ay ay assise nga génne ay recommandation ah, recommandation xam ne appliqué guñ ko ba léegi suñ ko appliqué woon rek coow li jeex jeex nañu appliqué rek ba pare balaa ñëw appliqué nag ñuy waxtaan ak nit ñi waxtaan desee baax donc loolu la ñuy loolu la ñuy soññ gouvernement bi mu taxaw si incha allah bu ko defee rek jàmm dina ñëwaat si si champ éducatif bi jërë ngeen jëf.